ak téléspectateurs yu Sen TV 12h30 jëm 14h ñu àndandoo ak yéen Zik Feeling mooy woy Cheikh Sarr ak séeréer bi ñoo leen di gunge àndandoo ak suñu ay partenaire bokk na ci boisson king buuru boisson yi waaye bokk na ci itam euh, Calpe Freeman yi mi nga xamee ni moo euh, gënte mën ci yónnee ak jot xaalis ci Sénégal noonu la ñu àndandoowee itam ak euh, ki nga xamante ni moom moo di meew alib Sénico moo ñu koy indil mooy meew mi nga xamee ni moo gën ci meew yi noonu la ñu àndee itam ak Euh, li nga xamee ni moom moo di Umu Express mi nga xam ne moo fi nekkoon Umu groupe ñoo gën te mën ci wàllu électroménager fii ci Sénégal li ci sama ginnaaw wane na li nga xamante ne nii moom lañ leen indil ci deuxième partie Zik Feeling balaa loolu nag sama waa ji laa ci àndal Azel Beyti bàyyi Noura noo def. sant yàlla julli ci Yonent bi tey bëgg Yeesu Krista doomu Mariama borom mu sell bi euh, di di bëgg yonent yàlla Yuusufa dëgg la mi nga xam ni am suñ benn xarit boo xam ne temps yi film boobu film boobu la topp. film Yuusufa mooy film yonent yàlla Yuusufa boobu nga xam ni dañ ko traduire olof benn beneen ñu traduire ko en bambara beneen bi ñu traduire ko en soninke. moom bu mu ci dégg. bu bambara bi la dégg boobu lay boobu lay kii bu Yusufa bu Yusufa làkkee dégg gars yi kii traduire na nu o maxa na xóori xanaa na fu ni xanaa ko ma ne ah tey loolu li neex na di. ma xamal la benn affaire. boo rekkul ba suur. mbay doo leen làkk bambara. en tout cas daal en tout cas daal. ci ci langue langue bambaranaise fa la fa lañ ko traduire traduction traduction bambaranaise. <laughs> bambaranaise. traduction wala française. Bakary yow anglaise. seen TV ngay liggéey wala Zik FM pour nga bañ fee ñëwaat. voilà.

Mm-hmm. guddi la goo xamee ni Sénégal Gambie àdduna wërngal këpp fu ne la di jóge di ci ñëw Sénégal la daan amee waaye ren ñu jël ko yóbbu ko Gambie diggante Sénégal ak Gambie gaa ñu war a jóge bitim réew waa Sénégal war a jóge Sénégal dem waaye waa Gambie ñoom teel nañoo pare bés bi yàgg na kor maman chérie fooli foo mbii fee wulu wa ñàlla tey moom il faut nga tojal ñu loolu maa la lii faaw mu toj ko de parce que man yooyu tekkee naa ko nu ne wax naa ci yu garaaw yu ne loo xam kon yow gëmoo sa tekki ah gëm naa ko ba jibi wax leen alaaji bu ma yàqal <laughs> bu fi ni benn problème maa fee wul wàññi ah indando indando yàlla baax na adando yàlla baax na ajaalima nuyu naa la maa ngi lay fay jibi di nuyu sama doomu de cheikh ngi mm-hmm. lay fay technicien yi mm-hmm. di nuyu macha allah auditeurs yi ak auditrices yi mm-hmm. di nuyu mbokk julit yépp di wax nag ñu ngi si weer kor bu tedd bi te mën a teem bés bu neex mooy lecture xadri di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di jox leen seen wàccuwaay di ñaan yàlla yàlla ñu fekkee déwén déwén yu bari amiin yaa rabbal aalamiin gërëm xéewal yu bari ak sutura ak naataange amiin génn àdduna yàlla yàlla yërëm leen xare leen aljanna amiin yaa di di di jaale waale sama doomu ndey sama xarit koo xam ne sama premier njëkkee mhm. tout récemment barki dem mooy doon 40 jour bi mhm. muy Gogo Ndiaye ndeysaan kooku mooy sama taw bu jigéen moom laa ko tuddee woon di ko jaale waa famille Ndiané yëpp mhm. di Ndiané aussi si ministre de la de de ah, kii environnement mhm. foofu la doon mhm. sama xarit sama doomu ndey yàgg na ànd ak moom fii seen la grande nuit du basé su doon jot man ak moom ñooy def course yi dem démarche yi lu mu nekkee colonel yëpp dafa wàccee boppam macha allah suufee sama pour sama première voix parce que gëj naa génne écran gëj naa génne wax rajo. kon nag kooku il faut ma rendre ko hommage. c'est vrai di di kontaan di bég seen seen invitation. mbégte gi Philippe El Hadj Djibi Dramé mu baax mi nga xam ni tubaar fakal la ko xam-xam ko ci yar gi tey gi dal gi bëgg boppam. Mhm. fonk ay mbokkam. wallaay waaye tamit fonk fa mu cosaanoo. dëgg la xam nga nit li koy dooleel mooy fa mu jógee. fi ngay jógee boo ko doolee rek da ngay am doole. dëgg la waaye boo ko néewalee doole rek. lay dëgg la da ngay néew doole nit day am base. dëgg de te toor fakal danga nga am base. lan moo tax choix bi nga ko doon def tout le temps Sénégal. Mhm. xëy bëgg jël choix bi yóbbu ko Gambie da ngay continuer rek sa Gambie après. Mhm. wala da nga koy bëgg def eh, comme ni ko Moussa Ngom defoon Sénégal bi. <laughs> waaw doomu ndey xam nga dañu ne Sénégal bi yàlla ñuy wax. Mhm. waaw dañu ne Gambia people dañu ne Sénégambia. loolu dafa jiitu sax ñun suñuy juddu. ndax Sénégal gami ñoo bokku ndek bay mais nak dama dama dama sétlu ben affaire. képp kii doomu daanan nga nek way kat wala mhm. porteur de voix. so naré am leader ci sa way fexeel nga dem gambi c'est vrai deug la ñoo mëna sagal doomu aadama. deug la. ñoo mëna taral daanan té dañu bëgg daananu Sénégal yi. dañoo bëggé ndaanaanu Sénégal yi c'est vrai. ba pare xaruñ amuñu xajj ma sen xam nuñ koy waxee. xajj amuñu xajj amuñu sen merci beaucoup. Mhm.

ñoo lay ñoo ñooy àkke mu. ñoo lay ñoo lay accueillir ñooy jël ñooy uh-huh. jël événement bi ah, dalal lekk loola naan loola ba pare teral la. wallaay dëgg la. man kese de. dëgg la amaana su ma ko waxee sama nee naa tàngoo du ma déglu dañ ne Djiby Dramé lu wax téeméer la. c'est vrai parce que ndaanaan ndaanaanu Sénégal yi fay dem yépp la ñu wax. dama ne Gambien yi lu ñuy def si ndaanaan sénégalais yi. non non loolu lu rëy la. wallaay ñoo mën yëkkati nit. dëgg la macha allah ba pare nag mun laa enjoy looy wax way su naqar sax mun nañ ko bégee Mm-hmm. kon nak kenn du Gambien yi. la ma am ma am ay samay soppe ñi nekk foofu am samay samay nit ñi nekk foofu. Mm-hmm. su ma limee nag Alima Cheikh ma juum. Mm-hmm. ma ne ko pourquoi pas eh, nuit du Bazin ren ma yóbbu ko gambi comme def naa ko macha allah première jusqu'à dix-huit dix-huitième édition Sénégal. pourquoi dix e bi ma dem delloo leen jukkal sargal leen. wan leen carrément aussi ñoom lu ñuy déplacé wu di ñëw Sénégal sénégalais aussi loolu la ñuy déplacé pour fekk si leen. jar na ko. moo tax bu ma ko de bu ma bu ma bu ma ko euh, euh, nasee lu ma gën a neex mooy dañu ne Djiby Dramé da nga koy yéex a def mm-hmm. seen kaddu loolu lañuy wax dëgg la da nga koy yéex a def kon nag euh, yéex a def boobu tax na macha allah amaana yàlla ni la ko dogalee mm-hmm. mais nag moo tax ma jë ma yóbbu ko Gambie mm-hmm. mais na bu ma ko yóbbee Gambie bu ñu ngay publicité commencé génn semaine passée mais nag am naa fa ay xas yoo xam ne sénégalais yi te Djiby Dramé ah yow ñooy boycotté li ñu ma tuddee waaye yaa ñu boycotté noonu kon ñu la bëggee. waa Sénégal waa Sénégal. wax nañ dëgg laago la nag xam nga. tàmm laago la parce que mooy ñi daan ñëw Grand Théâtre ñi daan ñëw Sorano. waaw non dem kin fat yooyu yëpp instant bi mais nag bii bii bii nag Djiby Dramé dañuy boycotté. ma ne ko du boycotté ma leen. ma ne ko soobee yàlla dinaa ñëwaat. mais Djiby bien commun la. ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo ko bokk. donc il saa mu ñamal ñii ñamal ñii ñamal ñii. dëgg la dëgg la waaw. te bi te bi nag Gambie li mu wax rek xam nga nit ki bu la joxee cër da nga koy jox cër. dëgg la mm-hmm. te dañuy gis tout le temps bu événement amee fii Sénégal muy Assane Ndiaye mm. muy Waly Seck muy mm-hmm. Dramé muy Youssou Ndour mu keneen ak keneen da ngay mm. gis ne mm. dañuy def délégation nga xam ne lii c'est la délégation gambienne mm-hmm. ñu indi seen bus ñuy jël avion ñëw ñëwee ci hôtel yi ñuy toog ci kër yi bu événement ba ñëwee ñoo fay jiitu am na ñoo xam ne sax danañ ñëw Sénégal du ñu jaar sax hôtel nii kër dañuy def directement wallaay directement wallaay léegi nag boo amee nag nit ñu la yëgee noonu dañuy di delloo yëg-yëg bi donc sénégalais yi nañu comprendre mm-hmm. mais ci biir compréhension bi avion yaa ngi daw. Mhm. ci biir compréhension yi. oto yaa ngi daw daw. donc mën ngeen mën ngeen mën ngeen fekk ji bi Dramé gambi mhm. sagal ko fa. teral ko fa. dëgg la booleeg la ko waa gambi eh, gambi di teral mais dama yaakaar ni nag. ak waajtaay bi nga xam ne gis naa ko. Mhm. ndax da ngay gis nit koo xam ne danaan man sama événement année bi lii la ak lii ak lii maanaam lii ak lii ak jibi Dramé. ñett yi mooy sama événement annuel. ci laay dem. dëgg la donc bu ko Djiby Dramé formé yobu ko gambi mhm. mom fi mu toll nii euh, célébration ci at mom day day daal di manqué. day euh, tool léegi nag na fekk Djiby Dramé gambi rek. <laughs> waye xamna ni wa gambi Gambie bu ñu yéexee. Eh. mën nañoo baña a dugg. ah non macha allah. parce que parce que waa Sénégal duñ len ci baye am na bul sonn <laughs> bul sonn. en fait ni di base c'est consommable. Mhm. ndax macha allah sant yàlla julli sen na Mouhamed. di wax ni depuis ma commencer commencé ba léegi. Mhm. macha allah lu ma si gën a neex rek mooy.

jéeg yi demi jéeg yi ak maam yi. mais je jeeg ak demi jeeg moom lan mooy différence jeeg ak demi jeeg. ndeysaan ñu dem demi jeeg fu mu toll nii gaa mooy mooy vingt trente ans yooyu. Eh, jeeg dëgg mooy quarante ans yooyu. Ah. maire fu mu toll nii dañuy dem maam yi dem soixante soixante dix ans yooyu. <laughs> diri diriyanke moom fu mu nekk. ah diriyanke fu muy nekk. diriyanke fu mu toll nii diriyanke diggante fu mu toll nii vingt cinq ans. diriyanke diriyanke <laughs> diriyanke léegi xale yi dañuy diriyanke de vingt cinq ans trente ans de. waaw waaw xale yi léegi dañuy teel nekk diriyanke maa ngi nii taxaw ay xale mag. maa ngi nii. xale ma xale man daal waaw mi ngi nii maa ngi nii taxaw. moom diriyanke la. <laughs> maa ngi nii taxaw yoon may ñu enjoy ko. ayca <laughs> en attendant. mi ngoog euh, faux amis ak euh, Djiby Dramé déglu ñu. international musicalement parlant mais culturellement parlant Djiby Dramé dafa international euh, lii moom mooy faux amis j'aime pas les hypocrites loolu loolu loolu la mooy xarit yi nga xam ne dañuy ndiru ndiru lu soppe ci ay faux amis faux amis. mu ngi si liggéeykaay yi. mu ngi si kër yi. dëgg la allah. Mhm. mu ngi si koñ yi. Mhm. daal mu ngi fu ne. Mhm. ay faux amis Alima en fait kuy ba ma ko commencé ba ma ko génnee ba léegi. dafa am ñoo xam ne dañ may woo Djiby Dramé mën nga woy ku nekk da ci gis boppam. ku nekk da ngay gis sa bopp ndax nag. lu nga yéenee doomu aadama ak lu nga koy lu nga lu nga suuxal pour mu am yow koo koy dimbali kooku mu ngi fexe pour mu lay mën a yàqal noo yàqule loolu olof di wax naan dunde sàq mi te bëgg sàq mi loolu daay yow jibi jibi eh, eh, daf lay dimbali daf lay jàppale merci te boo sañoon tey li mu am yëpp yàqu yàqu

ma ko kon donte da ngeen ñëw liggéeyoo leen xëyoo leen ah, nawet ba nawet ngeen béy léegi noor bi su ñëwee di ngeen attaay rek di di di bulu mm-hmm. léegi dama bëgg génne euh, salle de mm-hmm. dama bëgg def ko genre société quinze personnes vingt personnes mm-hmm. ñu commencé ñu ma ma ma ma ma ma yóbbu ko gox gox bu ne ku nekk am ci loo jàpp merci beaucoup mais gis nga ñooñu noonu ñoo def plan indi ay agresseur ñëw yàqal kooku yëpp ñu ne dañ leen agressé Seydi Aboubacar te ñoom loolu nekk seen njariñ. seen njëriñ dëgg la. parce que juste seen xarit bee ko moom te yéene wuñ ko. merci beaucoup dëgg la. loolu na ak aussi ak a bari. ak a bari ñu wax ak ñu waxul. wooy daal suy su digteewul yeeteewul rek. je crois des na. naxaate la sama mbaane yi am nañu ko c'est vrai doomu géwél lañu. Mm-hmm. mariage ak ngénte ak concert yi suñu nekk ñi sama mbayaan mais actualité li ci bi dëkk bi nañ ko wax rek te dee. Mm-hmm. ko nag loolu moo tax man les faux amis man dund naa ko Cheikh dund na ko yow Alima dund na ko technicien bi dund na ko amaana ndeysaan dëkkee dëkkee toogaale mhm. wala yaay nee na ko bul wax wala mhm. bàyyi nee na bul wax mhm. am mbokk la ñi koy laxasaale yooyu mais nag ku koy def su déglu woy bi nga xam ne faux amis amul njëriñ dëkk bi dëkk bi looloo fi ëpp aduna bi sax la aduna bi hypocrisie da fi bëri. manam ay nit yu fo torop sax. dafa bëri ay nit yu fo yu fo ay nit yu soxor. torop yu bon. yo xamni yene wuñ sax sen bop jam, yoo xam ne foo ko natt ko. xam nga dem ba gis nit ko xamni yene yéene wul sax boppam jàmm. loolu dafa bëri legi ci waaw waaw bon iñan soxor iña ñetti. Mhm. kenn ku avancer même su fekkee dañ ci gis nit ñoo xam dañ ci am ay genre yo xamni mhm. même buñu gisé nga sol yëre bu rafet sax. Mhm. boo leen nuyoo ñu fay la bakkan. ah maa bu ñu lay waaw di énervé. xam nga leen lay nuyu man foogoon naa ma rek la daal dégg la leen. xam nga leen lay nuyu. ay waay ñu gisee nga sol carax yu bon. rafle mm. rafle rap. tilim ñu nuyu la sama na nga def. boobu ñu ngi gëstu ban problème nga am. oubien oubien ñu ne. waaw dafa xamul boppam. da ngaa waaye da ngaa jeex temps yi la boobu ñu ngi ñu ngi jéem ay yow tey da nga jeex. Mm. yëpp dañ koy creuser uniquement pour xam lan mooy sa problème ba tax nga jeex. jeex am na ñoo xam ne jeex moo leen neex. Mm-hmm. dañuy naan lengom du ñu añ rer rek lañuy def ñom dañu bëgg perte poids mais mhm. ñu jaru ngi leen da nga jeex mhm. nit ki jeex sax problème mën na ko jeexal mais bo ne ko da nga jeex dang koy doli problème amna ñoo dañ koy exprès pour pour pour gën la problème pour dolli man nak bo mané da nga jeex man bo mané da nga jeex bala ngay eggal mané la man de pourtant damay accordé sax yow da nga feebar yow yow de yow de li nga perte poids war na mat juromi kilo yooyu la lay seuf ma la koy sëfaat ndeysaan parce que dañoo ne ci réew moo xam ne boo ci bëggee. man de soo ma woowee téléphone. nga ne ko Djiby Dramé dama laa soxla te waxoo ma ko. bloqué naa la xam nga su dama am tension wala dama am cardiaque xam nga su ne dama am hypertension nga ne dama laa soxla te téléphone lu mu soxlaa loo waxul ci téléphone ba nga ne kër rek jënd sa kër gi. wax dëgg yàlla. waxuma allo Djiby Dramé j'ai de toi ma ne ko ah doomu ndey nga wax lu xew. non su suñu gisee su ñu gisee diggante boobu yow xamul dama am hypertension. <laughs> <laughs> man dafa lay bloqué. deug la non mais c'est que doy war ñemeto wax ak nit téléphone. ñemeto ko nit vocal. ñemeto sax gis ak nit sa bo gis ak nit yaa ngi tiit sax nit ki mi ngi lay filmer la ilaha illallah lu ne yang koy xalat sa veut dire dañu dem ba léegi manam esprit bi nga xam mom lu la ñuy doxee mais sen lo dara c'est grave ñuy filmer mhm. wala ñuy euh xaaw sutura xaaw sutura mais yow mi di filmer yo sa portable nga filmer ba par yo xamone yo mi filmer tôt utar yow sa jëm yow genno si deug la yow mi def xaaw sutura nit yo, yow génnoo si mhm. ndax yow man ak yow alima ñoko sekk ñoko def yow nga filmé ma deug la ma xamne ne yow ya ma filmé ñi mhm. laccé ma kan mo la filmé mané ko alima ma filmé yow genno mhm. si deug la kon na wan weer nga ma weeraa nga sa weer nga sa bop mais pourquoi ñom duñu soralé lolu yow bu ngee te yow da nga sa wala wala yow ñom sangañ sa perte ndeysaan te dañuy jéem a seetal seen bopp réew mi réew mi tas na tasaar defar ko dootul yomb wallaay dëgg la kenn wóolatul kenn yàlla doolu sutura moom daal boo ci bëggee dund mooy jàngal wéet jàngal jàngal wéet wéet ok jamono ji ñu toll nii boo bëggee dund dund gu neex mm. Mm. jàngal wéet gàtt mm. tànk jàng wéet mooy fexeel boobu am nga ndey ak bàyyi def leen sa xarit ndeysaan boo amee jabar mbaa jëkkër def ko xarit say doom def leen xarit yam mais mais mais nu ma gën jaaxal léegi xam nga Cheikh dama mm-hmm. la doom yow Cheikh man lu ma mel dama fa ne yow loolu nga mel mais looloo looloo soxloon ñëpp léegi nag maa doon ñëw ci loolu soppeeku nag mais loolu ma jaaxal yow man lu ma foog man lu ma mel loolu nga mel léegi yow nag visage bi ngay ñëwee si man le début hmm. mois deux mois ba un an visage boobu changé wul hmm. jékki-jékki rek yow hmm. doo mën a xam comme lu nag nit boppam moo lëndëm dëgg la yaa ngi dégg boo jàngee ba pare waaw jàngal ñàkk mu dara maanaam loolu namm jàkkal jàngal mu dara doylu manam doylu deug la lo nam togg ko sa bir keur deug la lo nam togg sa bir keur bu nit nit togge monsieur toggul sa sombi lek lekk mu res ak jàmm ndax legi monsieur sax dañ ciy posone nit déedéet monsieur sax dañ ci duggal ay safara bismillah min sitaara man waxin la ko waxin la li nga so paré nak nga ñaaw njort rafet njort lakkal sanni ñaawal njort ci sa digënté nit ñi ñaawal njort ba ñaaw njort sa digënté ak mi la sak allahu akbar ay fu ñu jëm yalla bi la sak sax amal ñaw amal ñaw ñortu ci mom parce que yalla mi la sàkk akabako yaakar nga ni yaa ci nga yaak ni yaa ci fekk neko ci mën nga mm. xey yalla yalla ni yex dem ah, yowmal xiyam yalla ni la li nga ma jaamu yeb tegul fenn lak lepp sanni parce que sa xol setul mu la nangam sax du wala safara allah akbar kon ñaw ñort da dafa xew ñaw ñort dafa xew ci lepp nak bokk na ci li lay lool dugg ak looy génn yëpp ñaawal hmm kep koy jëfrante ñaawal ñort parce que ki ngay bokkal benn lal mu nekk sa xarit muy ngay góor muy góor ngeen bokk benn lal xosloondoo ba mu xam la biir ak bët dangay xëy romb ko ci wërsëg loolu metti ko muy xëy nettali yu ñaaw yéen daan def. wala mu xëy teg yoo xamante ni si musul ne ci sa dund. te amaana pour yàqal te amaana sax ndeysaan soo goree. nga nag moom sa sincérité sa yàlla sa wërsëg su moom la ko jaaralee. war laa teral nga yàq yàqule ko. ay waay àndatuñu àndu nawle. ndeysaan dëgg la de àndu nawle. comment faire. yàlla nañ ci yàlla musal. àndu nawle amatul ci réew mi. moo tax man la faux ami wallaay dëgg la moo tax Oussami euh, ñëw na ñëw na ci heure macha allah benn way bu ma marqué ci euh, ci yow te xam naa bëri naa ci morom bokk na ci way bi ay ci mi ngoog su maw la ak euh, Djiby Dramé ak maman chérie Cheikh bala mu ñoo bala mu ñoo tekki li ñu seen xulo bi mhm. parce que man bi saf na ma saf goo xam ne parce que man dama bëgg ruube neex na ma neex goo xam ne te xaw ma lu ngeen waxante <laughs> eh. mais eh, <laughs> internet yi ñoom sax ñu ngi yónnee seen ay message nekk chou ay ca internet yi nga xam ne ñu ngi euh, seetaan ci page officielle bu Zik FM ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax xam naa nañu gën a partagé gën a commenté waaye su ngeen di commenté ngeen bàyyi ci seen numéro téléphone ñu fàttali leen ni mhm. D-Média groupe la boo xam ni ba ñu dalee may léegi dafa yàgg mhm. suñ lay may duñu la déplacé loo bu fekkee ay bagage ñu lay may dañ naan la ñëwal jël ko mhm. bu fekkee xaalis la bu ñu lay yónnee fi nga toog ngay toog sa biir kër yónnee la ko dëgg la amna na ay say say yu dugg ci direct bi di jël seeni numéro di leen ni déme jam may na la nangam Sen TV zika may may na la nangam demal ci barab ba ñu yónnee xaalis boo fa eggé jox ma koy yónnee xaalis boko ko da nan ko neel na ma dugalal 200000 ba 50 150000 su boobu su ko dugalee yow yay fay donc déme ja yabulul kenn ci ben point kuñ ci tan sa tur dañ la ko yónnee nga jot ko sa sa yawulen

E, Ibaru Ibu Iburatin Yàgg Diagne Ndey Fatou njaay ñu ngi kontaan tey baax a baax Modou Ba Lamine Diop ah El Mo Ndiaye ñu ngi koy bëggee baax a baax Satine seen ñu ngi koy bëggee Sophie Goudia bi ñu ngi koy bëggee léegi ñu xool nag Abdou Karim Dieye ab Dieyeen la Abdou Abdou Dieye ah yónnee nga ma message maa ngi koy xool léegi eh, maa ngi tuub maa ngi tuub ah, Abdou Abdou Dieye ab jéyeen la waaw. ab jéy kooku kooku de xanaa tey moom. waaw ab jéyeen la xam nga boo ko boo ko jox ko xëdd yaa koy moom xanaa tey. waaw waaw bii ku ma maam kay fi mu toll nii. normalement soo bëggee dëgg-dëgg. Ah. Abdou Dieye mii tey moom. Ah. may buuram. dëgg la xam nga diggante Dieye ak saar moom. dëgg la de Abdou Dieye mii maay buuram. dëgg la de Abdou dinañ la yónnee léegi léegi léegi ñeenti junni. vingt bi ci njëkk mooy jëndee naa ko sa tur ak sa ak sa sant. kon noonu naa ko bàyyi tur bi léegi jënd naa ko sa sant léegi Abdou saar nga tudd Abdou Dieye ngénte naa ko ci dix mille francs mais mais Abdou bu ko nangoo. bu ko nangoo na commenté na commenté waat wax ni nangu na ko. léegi Abdou Dieye moom bu nangoo. léegi xam nga loolu moom mooy tudd gi. waaw moom laa jëndee santam tuddee ko Abdou saar nekk tul Abdou Dieye. su ma paree nag dama koy daal ci tegal cent mille francs yoo xam ni pour mbootoom la xanaa neex. Abdou xanaa du bañ loolu mbootu man de mbay bu doon man la ko. Eh, amoo problème. Abdou bala émission bi jeex légui légui légui di nga jot ñeenti junni. macha allah yoo xam ni média mo la ko jox suukaru koor. Mhm. ak sa waajtaayu qualité deug la mi ngi non mi ngoog euh, gën leen commenter gën a euh, gën partager yéen itam ñi ci ñaari page yëpp nak page officielle bu Zik FM ak page officielle bu Sen TV mais ji bi euh, su mawla bi xuloo la bo xamanteni fajar ngeen ko commencer suba tel lan la nan la way bi di wax et puis euh, li daw yaram ci j'ai vu que après un domaine qui ñoo en ngeen en fait xam nga sombaw la mhm. euh, wax ko waxati ko. Mhm. Mm, idée bi lu mhm. tellement complice ak soxna si. machallah machallah nek mais ça plateau ay en fait dañu ne Djiby Dramé ak Mama Chérie ak ñoo mën a ak a juboo dëgg la ak ñoo jàppante ak ñoo bëggante mm-hmm. te xamul ñu leen saa yi dañuy dañuy suñu mm-hmm. foyer mm-hmm. ndax nag couple boo gis rek mënul ñàkk loolu mënul ñàkk mooy xorom si ndax mooy xorom si mooy caaj bi merci beaucoup <laughs> bu ñu juboo day beesaat daa day beesaat yenn saa yi yenn saa yi ñi ñi daw rabbir ñu supp jalañ mu dig juboo jar na ay milliard <laughs> lu ne <laughs> même jour bi la koy muural di la koy indil ay laay ci laa lay nettal lépp lu ma seex wax yàlla nga gudd fan naan la seex newoon na ah, na ma juboo léegi nag su loolu ma ne ko maman ma ne ko waaw léegi nag rôle bu ñuy joué si intimité nga mm-hmm. xam ne ndeysaan public bi ak fans yi duñ ko gis dama bëgg ñu mm-hmm. génne ko ok mu ne ma ah da dégg ma bëgg catu ma ne ko catu ma la de dama bëgg nga won ma sa sa sa sa faux visage yi nga xam ne mm-hmm. yaa ngi koy def sa public man tam sama faux visage yooyu uh-huh. ñu ko génnee ndeysaan la mais tellement elle est gis nga rôle bi clip bi lu ma ko waxee mu joué ko nangu koo joué noonu ndax dama ko ba maman chérie dama bëgg nga mbëkk ma maman chérie dama ne na xeex bi tàng <laughs> na xeex bi <laughs> moo ci xolal yenn saa man wax yooyu mu ma du ko def de te kat ndeysaan moom lu ma doon bañ yëpp après laa gis conséquence bi ndeysaan bu xale yi magee nii moment bu ma wax waaw dañu ne boy yaay boy ak sama papa mm-hmm. lu ngeen xuloo lii lan la lii lan la ndeysaan ana dëgg ndeysaan boobu nag bu la yanoon léegi na ma gis nga man la ma la sama doom yi lañ may wax dëgg naa dëgg imagine toi que vidéo dañ ci war a xel vidéo dañ xel la man man après la la xamné ne lu tax mama def rôle yoyu té man ma man ma réaliser ak euh, euh, Papis. Papis ñaa aar bi parce que aar bi. maa ko man Papis man ni la bëgg mama da ko def mënuma ma Papis mama def ko ni def ko ni mënuma hé eh, du eh defuma ko. lii daal mun naa ko def. ndeysaan barki dem la gis sa ben clip bo xamni tawar fa kal ma ni clip. du jar baye xel la. yàlla ma do do do do do mooy do doomi doomi nijaay. do nijaay waaw kër nijaay bi kër nijaay bi. <laughs> ay Omar Sanzoye. ma mel ni soo mali. <laughs> ma ne sama waa jëkk xanaa bii day doog a jóge Éthiopie waaw jóge naa Éthiopie ba ñëw <laughs> mel ndeysaan am na ci vidéo yoo xam ne bu ma lekkee yét ak yabooy fudnal ba sama biir bi fees moo tax mu mel ni ni ñaari pompon alima njoon ya <laughs> léegi nag so euh, euh, so mbaw laa mhm. man am nga jikko am naa jikko dëgg la bu ma ko waxee mhm. maman su ma la takkee mhm. d'abord jàng laa ko jëlee man maman école laa ko jëlee papa ma yaayam ne su ñëwee day war a continuer jàngam. Mm-hmm. man ko maman dama lay yóbbaat ina nga continuer sa jàng su ma ñëwee ma ñëw ma fexe ba nga xaaral ma am sa diplôme yi ba ba pare. Mm-hmm. ñu doon def suñuy intimité. Mm-hmm. man ba mu ñëwee tëf mama am doom. ah nga da nga ah. sax macha allah at bu ci topp law la cat mu neef mu amaat doom. Ah. xam nga gaare naa ko. <laughs> <laughs> <laughs> du ko way deug <laughs> la légui nak luma ko luma ko promettre yépp yépp <laughs> alima luma ko promettre yépp man defuma ko xam nga deug la man mama légui nak man luma la doxul yow defuma ko mais wax mako mhm. mhm. man tam luma luma luma luma jikko sew sawani ngay def mhm. yo xamne instant man daf may metti té té man tam mo may metti sama dama la koy wax deug la mu na ban jikko sew sawani nak man ban jikko sew ma ne ko léegi dangaa ngaa pare sa maman chérie ma ko léegi instant bi man may yeew di ko maman na sama ndékki maman na sama añ maman na sama yooyu noonu nga door a jóg fu ñu def seen parce que instant bi da nga njaboot bi ñëw mm-hmm. léegi nag pont yi maman lu def man loolu yëpp man ma àkki moo ko. c'est que yii mooy yi ci biir kër yi. ci biir kër gi xam ne ñëw noonu ñu ngi ñu ngi toj seen kër. wallaay dëgg la mais nag gis suñu génnee mel ni dara amul. mel ni dara xewul. yenn saa yi dañuy fayti su génnee nag dëgg géew mi nii non benn bés mus nañu man ak mama chérie mus nañu fayti ba dugg si biir avion pour jouer ji Paris xoolal <laughs> looloo benn plat ngeen war a bokk ngeen a dem si loolu Babacar moo la expliqué ak sama <laughs> lu neexul Sénégal ba France laa wax la boobu histoire la man ak mama xaw ma déedéet histoire la loolu moom du ma ko nëbb dama koy wax sénégalais yi <laughs> xawma dama ñëw di eh, range sama bagage mm-hmm. ma jékki-jékki rek mu ñëw mu wàññi bagage yi mm-hmm. man ma lu tax mu wàññi bagage yi loo doyee li yëpp xanaa du du du du du mara yooyu ànd waaw mu ne ko maman wax naa la sa fiirande mais sama bagage yi mu ngeen ko wàññi mu jékki-jékki rek mu ne lii doo ko yóbbu doo ko yóbbu fu mel ni du ko yóbbu rek man bule naa mama. <laughs> nga ne ko dama koy yóbbu par force <laughs> dama bule naa ko xëccante ko fekk mu yore Eh, sama sama doom bu tuuti. léegi nag su ñëwee bu ma mu ko dóor rek mu jël doom bi def ko sa. kaw am nga <laughs> ma bàyyi xale bi. ñëw. te guddi googu la ñu war a voyager. Eh, war a bokk Voltex. ñu war a bokk Voltex yi mais jour boobu foog ne def naa defoo nag parce que instant bu ne ne def xam nga eh, jigéen kanamam la yor. xam nga soo ko defee bu ne day am des taches. mu ñëw instant bi ñu def ay maquillage am moment mel ni dara dalu ko.

toog ñu wàcc ñu dem otel ba ñëw ma ma mel ni ma jàpp téex ak xulo bi <laughs> léegi nag sama sama sama bàjjen jógee Paris ne ne ne euh, Nice la woon spectacle bi Nice la woon. Nice la woon sama bàjjen jógee Paris pour assister euh, kii bi mu gisee atmosphère bi man ak maman lu ñu mel kenn ku nekk mu ngi beru mu ne fii yaa quelque chose léegi nag woy sombawu laa nag lañ doon woy si géew. woy sombawu laa nag ñu doon si géew. ma jékki-jékki rek fekk mu gis sama benn géer koo xam ne ah moom ak jabaram ñaari jabar la yor ñu nekk si géew gi mu ànd ak ñaari jabar ak njabootam nekk si spectacle bi. Mhm. léegi nag mu ngi gaara waale dal sànni ko si kooku. <laughs> waaye maman waay. léegi nag te kat wala laay te la woon te kat mën naa commencé woon de maa commencé woon xuloo bi de si kaw seen bi sama bàjj tamit taxaw si kaw seen bi fayul fayul <laughs> sama bàjj ko mbëgg sa papa ndeg bàyyi mu faral mama mu faral mama te kat mu ñëw rek mu ne fayul wax ko ko wax ko ko mama di mu ne laa ilaa kii la la la wax yow wax ko wax. <laughs> bàjjen moo leen doon ëppal. moo doon ëppal maman jékki-jékki da laal góom bi xam nga nga nga nga nga xuloo nit ki laal benn góom rek. wallaay mën na ko teel rek laa lay rey tey. <laughs> wallaay tey laa lay mën nga wax lii. macha allah macha allah moo taxit euh, bu jubóo bi am. mu ne su ma xawlul sama njaboot ma dellu sama kër baay. ma ne ko en tout cas man ma en tout cas man pertu wax baa ngi ni law la cat macha allah.

ba xam bariwul amul groupe mbootaay c'est vrai que foo ko foo ko gis jibi ci wetu jibi dara doo gis nag loolu aussi yàlla sutural na ma ko di ñaan yàlla ba léegi yàlla yàlla set yàlla yàlla euh, cat sexluñu amiin amiin sutura yàgg macha allah xale yi mag nañu léegi xale léegi ñooy rangé léegi xale léegi su defee nag su ne nag comme comme Mohamed nii day jékki-jékki nag non comprendre quoi kii malien la comprendre ko mu ne Mohamed man ngay wax malien bi mu ne ma foo xamaloon papa dama ne papa na la téye bu baax yow nit ku loolu moom mooy neexal kër yi mi ngi noonu loolay neexal kër damay daal di bàyyi Cheikh mu ñëw fii ah ma ñëw ma ñëw toog continuer rek continuer rek bu may indil benn fi ma toog baax na de bu may indil benn yow kon xool continuer njoon baax na de doy waar. mais Djiby Dramé dama bëgg nga live ci morceau bi way ci lu la neex.

mais mais liñ ci wax ak alima lim ci lim koy li muy tekki. mu mm-hmm. <laughs> laxare. laxare mooy caat. caat laxare mooy caat. waaw laxare mama chéri caat la. mbii fee wul wala ñaan la mooy la. mbii fee mooy dama laa bëgg nopp la. waaw wul wala ñaan wul mbii fee wul wala ñaan la eh. ay mbii mbii ñaan la. furuñu ko ñaan la. voilà furuñu ko ñaan la mooy. bëgg naa la ah? mu wàcce wax ko gale ma ñëw euh. bëgg naa la parce que dama si ak yow ah. mbëggeel boobu aussi dollu naa ko si maman chérie man nom naa la lool lagaree lagaree ji ngay wax lagaree lagaree caat caat ah. diw ah. doomu diw caat doomu diw caat doomu diw caat ok hmm. maman chérie caat la d'accord caat caat boo xam ne ndeysaan yaayam su dee fii six Mali def six mois Sénégal macha allah ndaxte yaayam gëmu ko alpha diatta tellement tellement pour moi pour pour pour pour te dire que maman chérie. nous mhm. mu diggante moom ak yaayam euh, benn côté éducation de base dafa baax sa doom bu jigéen. c'est vrai ndax xamul kenn yaayam la xam. Mhm. yaayam su nekkoon fii ak maman chérie man dinaa dinaa né sax duma occupation jeex toujours elle est côté de sa maman. il doomu yaay la bokk. deug la parce que yaayam mu ngi am law la chat à l'âge de 45 ans. ndeysaan maman moom ak yaayam soo gisee ma ne moom ak maamam. ndeysaan mam sax la ko cee motax tax yaayam tur dëgg ma ma xam nga lan la te naa ko leer Sénégalais mooy poupée. ndeysaan poupée gëm ko woon. gëmewu ko woon mu tudd ko poupée. macha allah maman su su rombee na nga ne ko poupée day gëstu. ndeysaan moom la tuddee. xam naa moom euh, ci bu ma ñëwee Gambie poupée poupée laa koy woo. waaw ah, poupée <laughs> poupée. ma ne ko furu furu furu furu furu ño furu ñoxal. furu ñoxo ñaal la. furu ñoxo ñaal la furu ñoxo ñaal la. wax ko tey. léegi inter internet yi laay wax ku ma bindal furu ñoxo ñaal <laughs> ma jox la cinquante mille furu ñu ko ñàlle. furu ñu ko ñàlle. <laughs> waaw ñu ko ñàlle après bind bind bind sa numéro téléphone. <laughs> furu ñu ko yàlla. furu ñoo ko ñaala. furu ñoo ko yàlla furu ñoo ko ñaala. ku ko bind furu ñoo ko ñaala. ñu internet ñu ay ay internet yu doj la ñu yor. yoo xam ne tubaab fakkan ma dajeeg euh, mos naa dajeeg benn bambara. mu ma jibi bu la porté plainte ñun ñoo lay porté plainte.

album yi ñu def ko en 2005 2006 mu génn. Mhm. kon nag euh, mention spéciale parce que Konaté jàppale ma trop trop sama carrière. macha allah mi ngi noonu pour torfakal dañ naan du gërëm ña ñamu daaw. waaye nit ku gore. Mhm. dana gërëm ku ko defal sax lu ndaw. dëgg la Djiby Dramé loolu ak ngor ak ngor la. walaay dëgg la eh, alaaj Pape Malick Guèye mi ngi lay nuyu. alaaj Pape Malick waaw ah nee na ma nee na ma neel Cheikh xam naa ne yaramam daa tàng. <laughs> walaay Djiby Dramé moom tam papa mi ngi lay nuyu bu baax a baax macha allah. waaw mais pourtant internet yi ngi bind de furu ñu ko ñaale. furu ñu ko gis naa ñu koy bind de. <laughs> ñëw dëgër fit. fu furu ñu ko la. waaw façon bu ne la maa ngi koy gis de. waaw euh. ñi naan furu ñu ko ñaara ñii ne kii nee na furu ñoxo ñaara. moo ci kan ñaara waaw moo moo ko Mouhamed Diop. Mouhamed Diop daa dëgg fit. Lamine Lamine Mahrez junior nee na. Eh. furu ñoxo ñaal la moom loolu la bind. yéen yéen bu xanaa en en faakori. <laughs> mu moom furu ñoxo ñala la def furu ñoxo ñala. Ndeye Fatou furu ñoxo ñaa aussi am na day dem. Eh. furu ñoxo ñaa.

co en en coproduction. Hmm. wala yaa produire sa bopp. man maa produire sama bopp xam ni du bazin soo xoolee man man ma produire sama bopp suñu du bazin. Hmm. depuis le début jusqu'à commencement. Hmm. commencement ba léegi man ñu du bazin. man maa koy maa ko organisé. ndax coono si ñu du bazin boobu moom sentir. ndax nag ñu du bazin moo tax àdduna xam ma. c'est vrai. ndax euh, macha allah génne écran fekk euh, woyuma. rajo génnuma cassette.

Fanta Fifi Kanté suñu yaay bu RTS ah, Fanta Fifi fu mu nekk léegi. mu ngi bëkki dem ñu ngi jokkoo mu naan ma mu ngi Mali actuellement. wallaay dafa demoon dafa demoon Mali. Ah, Fanta oh. Fifi Fanta mhm. sama papa moom a jox ak moom loxo. Kanté ba ma nga na. alaaji Dembo. gis nga su doon dem Gambie bi. Mhm. te macha allah bëgg ma sonal ko. Mhm. su ñu demee ànd ak ak moom. ndeysaan ndax na Fanta Fifi Kanté dafa maa jàppale sama carrière. Euh, yaa gore ma kon nag euh, Michael Souma moo ma dooleel. ndax buma buma bu spectacle premier jour ma nekk ambassade du Mali. Mhm. di def 22 euh, septembre. Mhm. moo ma présenter présenté événement bi. ñu ne ko woykat bi mu jógee Mali lañu indi. Mhm. ñu ne ko bu ma paree mu ne ma mais tu chantes très bien wax lakk ma français. ma ko grand Michel, wax ma wax ma olof. <laughs> français bi dafay diis si ma. <laughs> mu ne ma non non non non non tu déconnes toi yow doo malien ma ko man Sénégal fii laa juddoo Tambacounda fi

ma ne ko woy bi muy woy dafa méngoo ak suñu solin mm-hmm. woy bi muy bi ñuy woy dafa méngoo ak suñu yiw mm-hmm. mooy dañuy ànd ak dégagement ak mbubu mm-hmm. te nu du basin am na Mali bëgg naa ko indi Sénégal pour won ne sañu waaso ñu ne aussi lu ñu mu ne mu ne ko soo ko defee day dem bu ma demee Sorano di wax ne damay jël saal bi dañu ne ma yow doo jóge fale te kenn xamul kenn gisu la si télé kenn gisu la si rajo ñu naan xale bi amul fit yow yow yow yow yow yow doo jóge fale ma départ ci Dakar FM rek Michael mu ma jibi dara mi mu ne ma jëlal bic ak fay nga conté ñaar doom adam nga xam mama bu nga tollu ni ma ko ñaar doom adam la xam lo mënuma ko conté mu ko gis nga ñooñu non mu ne ko ñooñu wi ci la suraanu mu ne ma mu jaar ak mom xolam dafa jël bik ak fay jox ma ko ma parce que fekk découragé na génnoo télé waxoo rajo ñuy génn télé wax rajo sax ñu ñuy feesal suraano yow nga xam ne génnoo télé waxoo rajo mm-hmm. nga am engagement mais yow da nga bëgg a sandi sa xaalis mënuma jëlal bi ak fay ñaata doomu aadama nga xam ma ne ko ñu teel mënu ko xam ndaxte l'époque boobu alima géew bu ma dem si mariage ak ngénte ñu duggul bambara ak soninke ñoo feesal xew bi borom xew sax am duñu am fu sees fu ñu toog. c'est man fekk naa la solo. ak tubaab lu ma doon solo ni ma daan solo ak baat bu ràññeeku bi. merci beaucoup nga xam ni baat boobu kenn musu ko dégg. c'est vrai ci musicien yi. et puis dafa mën spectacle. voilà mu yi. jibi bu solo rek ba def nii comme ni comme ni walax walax. wallaay jar na milliard. <laughs> yi ak séeréer yi joolaay comme loolu laa wax rek sama mbaalu fee bi. Mm-hmm. ñëpp dañu ne ndeysaan ay xoola xale bi mu ne law la cat. boobu noonu nag mu ne ko ah Michael mu ne ko am naa fit. Mm-hmm. Alima ma dem engagé. Sorano buma engagé Sorano ak l'époque bobu sama wasu dooleel ma. hmm askan buma ma bokk muy bambara ak Soninke. ñëpp jàpp ci ma man Soninke la ci bay bambara la ci yaay. hmm motax je suis polyvalent dans mes chansons. c'est vrai ba paré Tamba buma ma yaro yaroo da nga dëkk pël dëkk xaasunke dëkk olof carrefour bobu loolu yépp jeunesse bobu mu ngi sama bir boobu. sincèrement lu ma mën a woy si bambara mëna ko woy Sénégal laa ma mais buma défé la nuit du bazin sama première édition ñu du basé dootuma ko defati ndax nag ñu nekk si biti triple lañ nekk si biir. c'est vrai te gis naa ci lañ gisoon sa papa euh, mu nekkoon ci kaw seen. bi merci sama papa ngeen def yéen ñaar show bu doy waar. sama papa Alaaji Dembo Dramé. muy sa première fois mu jógee Paris pendant des années gisuma tam sama papa. ah. mu ne ma bii dinaa ñëw. pour dooleel la dooleel la. loolu rek ñaan la. ci war a fa sama papa moo ma xalal yoon ñaanal ma. teg ma si yoon demal kon nag man war ma am defet ci sama woy war ma am defet sama carrière ndax nag paa bi dafa maa ñaax gunge ma baay ma yoon dara may ñaxate kuy ne sànni gën ak jaawar xamul doo juma kenn du moom bàyyi xarit bàyyi doomu ndey bàyyi confident mhm. bàyyi boo xam ne ndeysaan sama buntu kër lay toog surveiller ma bu ma ñëw jóge dëkk ba ñëw mu doon nelaw hmm? bàyyi boobu moom moo ma wéetal mais nag

bëgg ngeen ci xéwal page officielle bu FM

Euh, le 21 mai. Chez Sorano. Ah, may le 14 mai. Mhm. Chez Radisson. Fatou Guewel le 11 juin. checking fat incha allah yàlla ko yàlla may ndam waaye macha allah ñoom ñëpp yàlla yàlla may ndam lu nga lim ñëpp ay njëkk ñaan lañu Djiby Dramé le 6 mai ca Gambie la grande nuit du bassin xam naa nag li nga wax euh, bu Gambien bu nu moytuwul du ñu dugg ndax Sénégal ñi ma gis ñuy wàcc ak ñi nga xam ne ñoo ñoo war a bi bitim réew yéen waa Gambie bu ngeen yeexee du ngeen dugg man am naa yaakaar ne Djiby Dramé euh, comme ça ram bi mu ram ni dugg Gambie mm-hmm. man pense que ne Djiby dafay waaj a def grande nuit internationale di ko def ci loo xamee sama idée. ah parce que ram bi nga ram bi wuti Gambie. jékki-jékki rek dem Gambie. xam naa boo jógee Gambie faa nga dugg Mauritanie. Ah. waaw waaw boo jógee Mauritanie boo ñëwaatee fii xam naa yaa ngi jëm ay Côte d'Ivoire. waaw Mali. waaw euh, nu mu tuddoo ci. dem dem France. dem France Mantes-la-Jolie. bu jógee France dugg Italie Italie Espagne. dëgg la de Espagne Belgique. Belgique après mu dem Espagne. dëgg la de jógaat Espagne. dugg Amérique Amérique dem Canada. xam nga nag xam nga ay ay pirateur ngeen nag yéen. <laughs> dana mujj international. dana mujj international. <laughs> maa la wax lii xam naa ne fan si nañ yàkkam loolu. waaw moo taxit euh, macha allah mais su ma ko ñamalee beneen réew rek. Mhm. ma indi ko Sénégal aussi. ndax nag base bi fii la.

loo loo loolee demee sax. waaw looloo looloo mais tey jii. Euh, nga organiser Sénégal. xam nga organisation Sénégal mi dente nga nit ñi. am na ci porte yoo xam ne tey da ngay laal rek. tubaab fakal mu ubbeeku ndax. jibi sa yar. jibi dramé sax mbaax. sa ubbeeku xeeboo kenn. kii gën a ndaw ci say fans. bu xewlee même bu yorul dara di nga dem woyal ko xewam. te am na ci waykat yoo xam ni dañ leen di xam ci euh, ngénte yi ceet yi. mais dañu am niveau bu ñu toll boo xam ne kenn mënut leen yóbbu ci kéet mbaa gàmm. mbaa mbaa ngénte mm-hmm. aw mais yow. ak ni ñu toll nii tubaar fakkal la sa xarit bi xew la lu mu ndaw ndaw bu la bu la ko nga ñëw teew ci dëgg la que loolu dem na ba dimbali la parce que nit ñi bëgg la waaye nit am yëg-yëg ci yow ba bunt boo ubbi rek la mën naa ubbee ko bu fi daal gis nga gis nga sama ménagère ngi taxaw wallaay muy Babacar Gueye mm-hmm. euh, dem ko ne ma ne ko Babacar da ma may lenn rek mu ne ko du yàq sama dara nag soo amee spectacle nga signé ko dinaa ko def mais dama lay ñaan public bu tax man ma fal ñu tax ma fal. Mm-hmm. ñooñu bu ma leen gàntu si lenn gis nga ngént ak mariage ñooñu ñoo ma fal man. tubaab fa kal ñooy ñoom ñoo ma fal. mais nga génne génn def spectacle génnoo kaset woyoo rajo kenn xamu la. Hmm. nga def plein macha allah. ñooñu ngeen ak mariage laa leen xame dëgg la yaa kon nag ñooñu noonu. ñi amaat ngént ak mariage ma ne ko damay jaay comme xale di wax maanaa. maanaa waaw. léegi star la mais star. woy woykat du star ku la ku la ku la bëggee mooy star. dëgg man maa wax woykat doo star. dëgg la doo vedette doo ndaanaan ñu lay bëggee di la consommer ñoo ñooy ndaanaan. parce que ñooy jënd sa cassette. ñooy soo mu nee woy law la mel ni Michael Jackson. nga taxaw si géew te amoo ku lay bégee bu yóbboo nga bàyyi woy dëgg la dëgg bu wér nga wax. kon nag ñooñu noonu du ma leen café duma leen tuutal ba pare waasu bu ma bokk mii man ne. Mhm. dañoo fonk suñu cosaan. Mhm. aliment dañoo fonk suñu cosaan. dëgg gis nga ngént ak mariage law la cat law la ma làmmiñ man su ma koy def da mel ni man Djiby Dramé maa ngi ñëw maa ngi festival. man fekk naa la mariage. kon nag dama koo laaj sama Babacar sama Guèye sama ménagère. Mhm. ma ne ko loolu na ma ko moo tax gis nga même su ma jógee Gambie sax sur lendemain ba pour te dire que damay tëgg mariage. dëgg loolu gannaaw nuyu du bassin bi. incha allah rabbi. très bien bi damay tëgg mariage. ci sa benn Sénégal laay war a ñëw. te tëggaat mariage lu a loolu ndax loolu loolu moo ma fal. mais dëkk bi xam ne tey da nga fa dem di organiser. Hmm. ak organisation nu méttee. Hmm. nga war a dem Gambie. war hmm. fa produire wala sa bopp. est que yomb na. xam nga. nit na gërëm rek ndeysaan ñu lay béggee ñu la sopp Bamba Sow design bi ngi lay nuyu. nga ne ko Sow Poulo Poulo ñaama tàggàcc kooku yaayam Adja Astokan Chimit. biir biir euh, New York. su ma wàccee sama bagage kër yaayam moom moom foofu lay dal bu ma yóbbu sax cinq étoiles. ndeysaan kër Adja Astou lay dal. Bamba Sow ma tax man ma xam Bamba Sow design moom ak yaay ñoo bokk benn gëñoo benn ween. ku baax ku baax aw fa fayam moo dafa doole suñu du bassin ñi gis nga ko ku bamasoo moom dafa bokk suñu di bassin maa ngi ñëw dinaa lim de dinaa lim mhm. ce que yomb na yombul yombul yomb na dékki-jékki ñëw waat xam nga su dee yomb na yombul mhm. ndax fu ngay bi ngay demee nga dem da nga da ngay bégal say soppe mhm. ñooñu ñooñu accueillir la même soo amee diisaay sax day waaj day day day oyof ñu ngay fekk si ñoo ñu nee na jibi dalaame welcome yéex nga koo def fii sa réew la ñu gën la bëgg guddi gën maa bëgg guddi gi hmm. fonk guddi gi seen xol ba nag taral ma si guddi gi bala avant mooy lan jibi nii ngay def nii ngay def xam nga sababu demal si diw demal si diw kii nii kii nii kii nii loolu pour guddi gi réussir ñoo la teg ci yoon ñoo ci yoon bi très bien mu yomb nag lu mu yomb lu moy lan déplacement bi va et vient bi loolu c'est normal. Mhm. ndax nak man dama bëgg sur le terrain. deug la parce que goudi bu toll non moom mënoo gëj ci terrain bi. mënoo il faut nga dugg ci terrain bi. Mhm. mais pour te dire que Cheikh sar mhm. dama dem ñu ne ma wala welcome. waaw ah mu dugal ma sen office yi sen sen sen seen gouvernement yi. ba macha allah ministre yi. lépp allah première dame. ko ko organiser moom Fatmata Dramé dafa wo première dame nee na ma Djiby Dramé welcome. da ngaa yéex a ñëw pour bégal ñun. madame Baro madame Baro. Mhm. Fatumata Ba Baro. Mhm. kon nag ñooñu. Mhm. macha allah aw ma seen fay. kon nag euh, nuit du bassin Gambie dama ne yàlla nii la ko dogalee mais yéex naa ko def. c'est vrai tellement ma dalalee. ba pare nag sama nit ñi baax yi nekk senegal aussi seetaanuñu ma. ku mel ni Ousseynou Diarra. ma ko dem Assane Diarra sama seex yàlla yooyu. Cheikh Sarr. Hmm. ku defal lu ba wax ko ko. dëgg la xam nga sa diggante ak sa doom sa sa sa xarit. Hmm. mun ngeen nekk mu métti. mu neex mu fàtte la. dëgg la dëgg bari. Hmm. ne nag dugg ni bala bele si fafala keme kɔnɔtɔn ni fali ma lolo. Assane Jara seenu Jara. Jara musoman bɛ sembe susu ca bɛ kɔlɔ caman b'a kari daf nga ma surprise boo xam ne toogewuma ma ko xalaatewuma ko mais su ma ko waxul si digg Sénégalais yi boobaa ma nekk jaam. Djiby Dramé da ngay jëmale si guddi gi doo si wéet doo si wéet d'abord si nas bi doo si wéet macha allah foo waree def dërëm war nañ la si jàppale def la ñaar dërëm. dëgg la kon nag ku la defal loolu kooku amoo fayam. nit ko reconnaissant moo neex a àndal te Djiby hmm. dafa reconnaissant. dafa reconnaissant eh, dafa reconnaissant Alima. Uh-huh. man ku ma defal lu baax. Uh-huh. fukki at ak juróom. Uh-huh. mu ngi sama biir mémoire du ma ko fàtte. macha xam nga man soo xoolee man. saa su ma defee émission wala ma nekk sur live man lim sama géer ancien yi mm-hmm. ñoo xam ne ñoo ñoo jëmbat Djiby Dramé mm-hmm. ku mel ni Aïda Sow Diawara Aïda Sow Diawara moom chaque nuit du bassin ci kanam lay toog mala xéera ni mali mala do eh ñamakata sin san anin burin sin san naamu hmm? salaman dongu dég wuy loolu alhamdulilah rabbil alamina madame Baye Diawara ew eh moo bëgg Djiby Dramé te bëggante wu ma xam nga mbëggal du weesu. Mhm. nga nekk mag soo sa sa doom su amee géew nga bay sa yitte yëpp toog. nga déglu ba mu jeex tàkk muy njëkk muy mujj. loolu na weesu bu mu jàppee ba léegi bàyyiwul. Mhm. am ngir su la ñee du la yokk alima. déedéet bu la ñee du la dolli. ku mel nii ami jaawara daba ngi la soxode. eh sama waa jàngoo. ami soko de jawara banna kesetigi jawara soko de jawara banna jime do bugari kamantunga do kosongome je suis fier et grio de soninke ami jawara kendo mo ko melni sama baron ko xamne machallah su deme pusher bi ngi ci ginaaw suñu poussière mi ngi ci ginaaw moy elastique ki kaba korami sama ke jandulay kaba cha kaba mente tente nate bunte mori la kaba do woden kaba ni barika den kaba naamu jafu nunka masha allah borom jabaram dooleel ko mais aja xadi sama ke xadi sama ke ko buru sama ni baburu sama wallahi sama senkamba ne sama bolo kamba waaw kon mooy loolu elas moro sama ke den waaw adama touré moo de cɛ asidu sidi be den foronto alhamdulilah rabbil alamina law ñoo dooleel Djiby Dramé xam nga soo nekkee nga juddu am réew yaroo am réew borom réew bi bugg bugg la bu yeboo nga xoolaat sa bopp. dëgg la te nag nañu nangu nag Sidiki Kaba moom moom mm-hmm. Mm-hmm. man de fekkoo ma jamono maa de Sissoko. Mm-hmm. fekkoo ma macha jamono Moussa Moussa Diallo. Lassana Malo Diallo ma nekk xale. fekkoo ma macha allah fekke naa tuuti jamono Cheikh Sissoko. Bakary Gidim Pallang moo nekkaan ak jaayanke mais nag jamono bu ma fekkee ma santi sama bopp sama dëkk mooy Tambacounda oriental fu ma dem drapeau boobu laa yóbbu mooy hmm. Sidiki Kaba Sidiki Kaba kon waxuma ma biyee Makka yi waxuma loolu mais mbëggeel mun nga may nit ki biyee Makka wala nga may ko am dërëm fekk amoo su moom safoo ak faale ak yëg ak teraanga dëgg la sama baay nee na ma soo toppee giir toppal giir bu la bëgg bu la yërëm bu la yiir bu lay sagal dégg naa dëgg da nga judd ñu xàmmee la alima soo déyee nga bari mbooloo dëgg ñu ne diw dee dee na ndeysaan diw baas bi fees dell bu ko làcce kadee la kadee la moo ko jëf moo ko moo ko jëmbal wallaay dëgg ak ñi ñi ñëw wuy ko kon jandulaay kaba yàlla mu dund titi yàgg fii su nekkoon Tambacounda suñ ko amuloon Tambacounda ñu créé ko du ma liim nem si yàlla sama giir bu ma teral te gën na àdduna mooy ndey Keita ma xaddi dee awa eh? gafuree diin awa jàlloo dee nelaw na yàggul kookoo jàmbat ji bi dara ñuy di base nuru soma karambali soma ndey keyita latala kala bi kala bi bomma kala bi dogoma timmine waliya mi tàppe mbokku ndeem koromba keyita nelaw na mbokku ndeem mari keyita nelaw na mbokku ndeem tuuti keyita nelaw na seebay baayam siku keyita yi baayam chéri Aïda Diarra mm-hmm. kookoy kan ndey keyita kookoo jàmbat ji bi daraame. ndeysaan. eh ku lim juum sama première édition xam nga kan ma njëkk a jënd billet yi. kan la mooy Lamine Samake. Lamine Samake. di bàyyi Rose Samake journaliste bi. Hmm. Rose Samake ma ngi gis baayam Lamine Samake moo doon maire Grand Dakar. Gambie de xam naa ne mbay da Sénégal dina neex waaye Gambie dana neex lool de man danaa ñëwal Ami Diawara. Alima. Gambie da nga Ami Diawara. Alima ba suba gis nga ñooñu nga gis noonu.

mom momu ma wa moy fatou keita fatou keita fatou keita man ousmane jaay ko japp ñak ko xam worul délégation tam dina ko ñewalel dang ko wara ñewal dina ñewal ami oh. jawara ko cheikh kanté dina ñewal fatou keita nga ñewal tabarakalla khadisa makke khadisa makke musidiki kaba nga ñewal aida sow jawara aida sow jawara dama ne nga ñewal sama cheikh yalla yu ousseynou ak assane jara sangaranga hey jara sangaranga ku def deug wa jara sangaranga ku def deug cheikh sar ku deful do deug amna da wool waa waa Gambie ngi seraan nag wool waa Gambie de. mais waa Gambie su ma leen beree loxo fii lay fanaan. ñoom police ñoom police maa na nga. bul eggale. ah police maa kookee po. police nga fa police maa na nga fa. walaay ma ne bul eggale kookee po. eh Aboubacry Diawara nga fa. ma ne bul eggale kookee po maa ngi yow. ci leen saara nga fa. dëgg la de. laa policeman. borom élégance magazine. Gambie laa xaaral ñax Gambie. ñëwal Gambie dugal Gambie. mun naa dugg Gambie. ñëwal dugal ma dugg. dugal dugal dugal ji su ma duggee Gambie gàmbi tàng de. dugal Gambie ku ma teral oto. koo xam ne macha allah ngént ak mariage la la ma woowee. wallaay dëgg la muy Mbaalu Daabo. Mbaalu ajatu Mbaalu Daabo. doomu Moussa Daabo. dëgg la macha allah. doomu Adja Mbaa Fanta Mbaalu Daabo mbokku ndem Awa Daabo. Mokundem Adja Daabo boobu. Mm. moo ma bëgg te bëggantewuma bu maa ko wuy bu réy bi. ngo jula mana sanu ma torobe jula lefe jula barikama jula mana o godi mon torobe mbalu lefe dawo jula julani donna dote selay kadima madamu amadu kora e a safayoxo kemedila jalolu a safayoxo daba jula woy boobu laa ko woy déggal loolu bi niinul ma ñaaxa dem Gàmbi policeman mu nga wax noonu mm. mooy xarit jéegi dëgg ko xam wóorul kooku soo gisee man ma xam ko doomu jaane tirere tirere ma xëy ñëngu sàmba mooy baayam ma bay si la mooy yaayam muy jaane tirere tirere ma xam madame Dieng Sall mi ngi toog HLM surtout Auchan bi mu mën a jibi daraame sama doom ngi ne Ndiaye mu ngi gàmmi fexeel nga xam po policeman bu ma xamee policeman moo ma nasal law la cat jaane boobu bu walla Boubacar Diawara eh ndaba ngi lee soxodee jime doo bugari kamantungan doon ko songo l'homme fort de Gambie. l'homme fort de Gambie. wallaay Dabangile Sogode Jawara Banna Kesetigi Jawara Karamatigi Jawara. Eh. lambe bɛ Jawara la. Eh. Jawara la. hinɛ bɛ Jawara la. Eh. makari bɛ Jawara la. bonya ni karama bɛ Jawara la. Jawara la. ñun suñu ngéwél amul tricherie man de. dëgg la. <laughs> soo nekkul ndeysaan sa doomu baay rek tabaarikalla macha allah doo déglu lii. nu may def pour nekk bàmba. li gars yi naan Adando. li nga wax sama kër ne mais mais Alaaji Saalu bi da koo daaneel da koo daaneel carrément. déedéet nee na léegi ci ngewelu bambara yi la bokk. <laughs> nijaay. mais mais mais mais jarbaat. ah. non to non jibi. Hmm. jibi ne ko ne ko dama wutal extrait de naissance. ngewelu bambara laa. man ak yow man ak yow. <laughs> non bi mu xam nga xam nga ngewel dafa neex. dëgg la. mais ji ni muy tudde ay jéeram. dëgg la. Hmm. yow da yow yow da ngay nekk da ngay nekk dans le dëgg la ndeysaan. te li mu wax ni eh, géwél boo géwél boo dee tricher. Mm-hmm. doo doon géwél. déedéet. li ngay wax il faut nga sentir ko. Mm-hmm. pour ki koy wax mu mën koo sentir. dëgg la. Mm-hmm. looy dëgg xaw ma nan dama ko ni naamu ñëw na ak ñaari doomam. fi ma maa ngi dawal waaye man loolu laa wax. mu <laughs> ne naamu na ak ñaari doomam. ko naamu ñëw na ak ñaari doomam. waaw sala bii ngay waay sama xarit. waaw xam nga géwél dafa neex. torop torop. te nag lii mu def nii yombul. déedéet. ni witi bassin. man ci premier nuit di bassin ji dara ba ni muy mujjee amu benn boo xam ne demul yëpp laa dem. dëgg la parce que ay nit nga fay gis ñoo xam ne ay nitu valeur. yu am valeur sax. ay da saw jaawara mii nga wax. meeru mm-hmm. golf di suñu yaay ju baax. dëgg la moog ji bi dara ba muy tàmbali. ba muy tàmbali ba tey wallaay. nga gis ko moom madame Kanté. Mm-hmm. ami jaawara. ami jaawara ko Cheikh Kanté. te ba muy tàmbali. waa ji. ak ñeneen nag ñeneen nag ñeneen ak gogo Banel Ndiaye suñu jigéen boobu. gën a nga xam ni moom la ci bi may première njëkkee benn eh, banal doon sama xarit doon sama jigéen. wallaay ndeysaan loolu mooy kóllëre. dëgg la ji bi dafa am kóllëre. dëgg muy nit ku baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. succès boo daan am Sénégal. Mm-hmm. boo demee Gambie yàlla na nga am succès bu raw. am amiin rabbi amiin rabbi amiin rabbi a amiin waay. dafa baax ci ñaari dëkk yi. Mm-hmm. ba pare dafay baax ci ñaari peuple yi. moo tax def lu baax dafa am solo. dëgg la te gëbal lu baax rek lay def. dëgg la su ne ni Djiby Dramé luñ ko xaalis buñ ko mos a woy buñ ko mos a may ci ci ci ci nuyu di ba jeex na. dëgg la mais woy wi mu woy géeram yi woy yi du jeex. dafay des woy yi dafiy des. dëgg la moo tax kon bu buñ ñuy Djiby lan ko may na xool Djiby ñamu woy. dëgg la ndax woy nag woy woy amul prix. Mm-hmm. ku la bëggul du la woy. déedéet kon Djiby ñu ngi lay ñaanal. amiin rabbi yàlla na yàlla may ndam lu kawe sa njort. amiin rabbi amiin rabbi. mais Saala. ndeysaan Saala bi sama xarit. wallaay bu baax. ci mm-hmm. valeur. nawle boo xam ne macha allah dafa fonk dafa fonk boppam fonk nawleem Saala bi maa ngi lay nuyu. bu baax nga yow da nga mën a wax lu baax. jëf hmm. lu baax nas lu baax. dëgg la yàlla jàmm yàgg fi daal daal daal. docteur Souleymane Astou Diagne mi ngi lay nuyu bu baax. mais mais li gën a li gën a neex mooy Djiby Dramé. Hmm. dafa dem Gambie def fa hmm. nuyu di bassin. fekk fa nawleem. maanaam xaritam ndaanaan kullu fadri. dëgg la de. mu jël guddi gi yëpp tegaat delluwaat ko. dëgg la de. moom la kat bu mag boobu. deli bàkku yaate bàkku yaate xam nga booy dugg ci kër da agara sama agara jali ba ko wate woo agara samagara ha jalima kuwa tɛwɔ eh. kunkuma ni bantawa jaliba ye kuwa tɛ kuwa tɛ kuwa aja alimajɔn mm. eh, sheikh sar hmm. jali jibi taara na gambeya ɲankarifa jalikɛlola jalikɛla jaliba n taara tuma min na boma dɛmɛ gambiya gisina jaliba ndekete yo askan gewel askan mande ñobokku ndey ñobokku baay mu ne ma jibi dara me ma dem lay bégee jibi dara me man dem lay safo mm. da nga fonku culture da nga fonku askan da nga fonku sa juddu moo tax ma lay bëggee saa soo woyee man Djiby Dramé eh, eh, eh, man Jaliba seetaan naa la moom ak ay jabaram dara góor Djiby Dramé góorgóorlul góorgóorlu dara Dramé loolu la ma Jaliba wax mu ne nouvelle génération am nañ sew kàddu te wóolu nañ la bul bàyyi man de mu dem jot nañ jot nañ vidéo yépp mais fi mu toll ni temps bi moo nu xaw a bul bàyyi man ne mu dem loola ma jali ba wax yoo e eh, jal ba e eh, eh, jal ba e jal ba jali ba kuwaate moomi dani gay nen nena moom sax léegi bambara la kan moo ah, moomi moomi sekk waaw nena nena léegi moom bambara la nga ne ko nga làkk ci bambara nga ne ko kinne kinne ju fa yaayam ñëwal léegi bambara nga ne ko El Hadj Thione Seck ay baayam mbokku dem Waly Seck ah. macha allah moomi bu ma ko waxee guddi gi dafa mën a jibi dara même ne ma xamal ne Gambie ak Sénégal doo si wéet madame Bouga mm-hmm. mais nag ndeysaan du ma ko ne nguleet mm-hmm. doom ndeyam Ajaratu Kiné Diouf mbokku ndeyam macha allah man Kiné Diouf moo koy xam Khoudia Niang moo tax ma am Kiné Diouf. mooy yaay Kiné Diouf mi Khoudia Niang ñam balo. sakile ba mu sow dem foronto. Mm-hmm. sama sama édition deuxième édition nuit di bassin. Mm-hmm. Kiné Diouf charte satoire or la ma may. ndeysaan. teg ci alal bari ànd ak délégation fort délégation jàkkaarloo man Sorano. Sorano. wax ni tabaarikàlla macha allah loolu démb la bala tey soog a ñëw. kon nag suñu déggee ñu ne waale waale dañu laajte mo yaay jirim yaay baayo yaay doxu ndem hey bul gis doomu adam da dox nga nako hey bu laajte xamoo ko ndeysaan yaayam lu ko ngem ak yaam lu mu liggéey kër bayam xamoko motax nak jamono fi tollu ni so soo am lamb ñu door la ba dal la bul wàcce kenn layal sa yaay bu mere ken mere sa yaay wala bu la dóoree ba tok sa den ah. bu mere ken bu mere ken mere sa yaay ala ji waxtu wi jeexna ñewal nañu bëgg nañu loolu vraiment sha allah ami sabanke ba nga bakk léegi ni ko buru sama madame Babacar Diop mm-hmm. kooku géer la bàyyi moo ne ma woy ko sama Samake mu ne ma jibi dara woyal sama taabu jigéen gi nga xam nga ne am na gërëm baayam billa am na gërëm baayam ni dee tuturoo baayam mu ne ma bu roqee see demee ba léegi sama doom seetaanu ma yaa bu mu dund seetaanu ma yaa mu génn àdduna seetaanu ma man moom li ma li ma condamné woon akus néew dinaa la ko jox ci nuyu di basin euh, joxeel ko ami jaawara mu Cheikh Kane dama ngi la soxodee moom laa koy joxeel du ma lim nag Gambie ku lim juum. dëgg la Gambien yëpp. ku bëgg nag billet bi macha allah. waaw comme nag ndeysaan Zik FM. mu ngi fu nekk. mu ngi fu nekk dañuy dañuy déglu mu ngi fu nekk. demee ñoo funte ni ndeysaan waay waay waay waay waay waay wax wax wax wax rek. ñu jël ñu jël lii léegi numéro yi parce que xamal la. ñi bëgg billet yi foofu ca Gambie. Euh, damaa ragal. Mhm. damaa ragal ñu toog ñu ne ma ndeysaan jibi daraame eh, comme lu muy def rek nuyu du basin. Mhm. ndeysaan jàng naa anglais de eh, ñu ne seven seven mooy set six mooy lan mooy six ah, ah, cinq mooy lan five waa léegi seven six five nine nine nine nine <laughs> jàng naa anglais de waaw soo déggee ñu ne euh, euh, su dee gàmmi gàmmi la zéro zéro deux cent vingt soixante seize 999 99. dëgg la Omar Waale muy may seetaan de. Omar Waale fashion. Omar mm-hmm. macha allah mbokku ndem tabarkala Karim. suñu Karim mooy Rimka Couture. dëgg la ñoom su ma demee Touba Sandaga ñoo may dalal. ñuy di basin su jotee du ñu toog ñu taxaw Omar Waale même bu mu war a sol tabarkala ñuy di basin sax ba macha allah moom daf si ñaw. dëgg la de na ma danduma. Rimka Couture nee na ma Jibi Dramé yow loo si soxla tëddal nelaw. ndeysaani yee du ma lim tey yëri nag. Bara Couture du ma la nuyu du la gërëm. Tafa Fall Tafa kenn du moom. Eh, Mbow. Mbow Mbow Mbow mu ngi Pikine kenn du moom sama xarit kon nag eh, su ma limee demee juum kon nag demee ñaan yàlla ñaan demee ñaan yàlla nañ ko fekkee tal kon nag ñu ma lim ñi xam ne macha allah ñu ma limul ñi xam ne xel day fattu. émission rek la. dañuy fo dañuy am jotaay yoon naa seen jotaay. waaw waaw. Cheikh pare pare nga. kontaan nañu waaw kontaan nañu. waaw. auditeurs yu Zik FM ak téléspectateurs yu Sen TV internet yi kontaan nañ ci yéen. Kabako rendez-vous le 6 mai la incha Gambie. Mhm. na ko ñëpp waaj ñu fekkante fa daal di bégalante incha allah. incha jibi kontaan nañu. bég naa si yéen. Adando. Adandé. maa la <laughs> wax soxna baale mu daga woolu la darmi bo nga doon moo tax nay astu aaju woolu